ngeen jëf ndeyem si yàlla buubu si bu gisaatoon photom bi ci xët wu njëkk observateur fa mu tëdd dana fa tàlli ñareet li mu am moom garde corps Macky ba woon te faatu ci l'accident bu am ca boori kër Martin gi ci yoonu Fatick jar naa liggéey ba dee garde corps bi ab kooram ci kees ñu sàngi ko drapeau Sénégal njiitum Sénégal tim ko sëgg di ko sargal observateur nañu démb la woon ca l'hôpital principal bu Ndakaaru ba ñuy rob accident buubu si Macky Sall ma ko teye woon yëkkati ma xam le ne a ñàkk waaye moom Macky Sall nekk ndax bu bu si fa mu ko féete woon Macky yamu ca ne ca biir wax ja xamle na ca ne doomam ju góor moom Macky Sall ba mu yëgee ne accident bu si dafa faatu ci l'accident Macky Sall ne doom ja guddi gi yëpp da koo jooy ñeneen ñuy jooy seen doom te ba léegi seen ronkoñ feragul moo di ca Pikine Est di fa mu màggee yaroo fa observateur nañu autis moo leen gëtan jamono ji Le Soleil nañu accident bu si dém dellu nañ ko njukkeel lu mujj gunge ko ca kuy dëggal wax ja ndax ma ngi fay xamle ne accident buubu si mi génn àdduna dafa meloon ne ko bokkoon ci njabootam njaboot ga mu bokkoon dëgg moom accident buubu si di njabootuk takk deri ñenn ca di police Sénégal seen njiit di anase mu la république njiit réew mu fay njiital police Sénégal ba mu génne ca ndajama la mu xamle moo di dana def kemtalay kàttanam ba police Sénégal mu delloo ko dayo bu mu amoon le quotidien nañu aana li ko tax a jóg moo di faay yi am ci police sub Sénégal populaire xëy ci dellu siwaat ne ñun jiital police sub Sénégal di Anna Sémou Faye démb ma nga woon ca palais de la République li koy xaar ci réew mi ba mu xamal ko boppam bokk na ci ñàkk kaaraange gi fi am populaire yamu ca ndax giseb njiital mi Macky Sall ak Anna Sémou Faye mi jiite police sub Sénégal li ci yéenekaay bi gis moo di Anna Sémou Faye gemb nañ ko jox koy ngànnaay te ca palais ba la ko ngempay ka ko ngemb ngànnaayal république direct info xëy ci dellu si wat jox kàddu gi lenn ci jege ñaale Macky Sall ki njëkkee kàddu gi mooy Abdou Mbow député APR la mu wax taskatu xabaar yi direct info yi moo di rafetlu na doxalinu Macky Sall beneen député bu topp ca wax ja di Boubacar Biaye moom it mook Abdou Mbow bokk gis-gis ci kàddu Macky Sall yi lu ñu rafetlu la Arona Coumba Ndoffène Diouf moom la mu gis moo di coalition Macky des ko war a tas ñëpp noppalu noppeeguma la def ndax communiqué bi nga xam ne moo waraloon Macky Sall mer mer mu rëy ba leen doon waas communiqué boobee Ibrahima Sall daf caa delluwaat gannaaw mel ne ku ca taqewul laale wu ca yëgul tiinul te dara ump ko ci Ahmed Fall Baraya mi président UNACOIS Jàppo bokkit ci parti démocratique sénégalais nañu ci observateur bu ngeen bëggee dégg-dëgg moo di nguuru Macky Sall du dem ña ca nekk amuñu gis-gis bu yaa Ahmed Fall Baraya ne waa observateur njuumte lu rëy li ñu def moo di Ndiaye doomi xalifa général mouride di sëriñ Moustapha Mbàkke moom sëriñ Cheikh Sidi Muxtaar Mbàkke démb demoon na seeti Karim Wade ca kaso bu Rëbës dem fa ñaanal ko te ñaani du moom rek ndax yéenekaay bi xëy nañu xamal ne Cheikh Seydou Nourou Taalit moo ngi ñaanal Karim keneen ku soxlay ñaan jamono ji grand place nañu moo di Idrissa ndax partem daanaka aw nit desatu ca ñëpp Macky ngi leen di pekk di xëcc yóbbu ci aw ñoñam ki ci mujj yéenekaay ci parti réew mi feneen lay xëccee kan la bëgg a xëcc journal bi nañu moo di booyu Parcelles Assainies bi Moussa Sy kookee la Macky Sall bëgg a xëcc ma xëccaat observateur xooli ji la fa nekk te jara siiwal muy amical gi ëmb jigéeni futur média yi journal bi nañu tey jii ñoo nga jëm ca kasob camp pénal fa ñu tëj jigéen ña lange ji fab conférence te it duñu ca yam ne dana am ndimbal lu ñu yëkkati jébbal ko jigéen ñi caabi féete gannaaw te ñu nekk ca kasob camp a ñaas seen kaso